nee na jël na xolam bëgg gi mu bëgg Serigne Saliou dajale loolu yëpp teg ka sa loxo defaat ko addiye Serigne Saliou jox la xolam ngir bëgg gi nga bëgg Serigne Saliou yàlla na ko yàlla fay Mor Mbaw Tange international bi nga xam moo ma sañseel nee na man melomaan laa mm-hmm. mu ne ma Touré man melomaan laa ma ne ko luy melomaan sa waaja damay déglu ku mën a way rek bàyyi Modou ma sataak ma sayer ndaak déggal li moo ma def nii na ma demal moom nag xam nga ni sama waay la démb tey soog a ñëw waaye moom Omaro lay bañ a gis heure mënoo ko ñawaloon Omaro day bañ te man kii sama siboo ki ma jox sama bakkan àdduna ak àllaaxira kii kat men ñëw ma naa ko kii quatre mètres ñawu ko trois ñawu ko dëgg du neex lu la lëmm lay war a ñaw nga ni moo tax ku ko war a sañseel danga koy waaj moo tax si di ko jox ay body yu baax waaw jërëjëf sama doom ji barkal maa ngi koy yàlla guddal fanam te ay cëram ndax ku ne xam ne ni semaine bi yëpp lundi ba jeudi li ma sañ sépp sama doom ji moo ma ko jox Sidi Diop waaye kat mag bi mm-hmm. moo mën a père mën a ko naa mun a ma 15 jours waxuma lënd bi waxuma mardi ba ko topp fi fukki fan ak juróom loo sol man la booba ak léegi dàll tubay yére casquette lépp sama taaw bu góor ma koy jox may sañse yàlla si jàmm waaye li ma lay laaj mm-hmm. Sidi eh, bi yàlla dogalee tey ñu jaxasoo di jëflante mm. ak tey def na ñetti at Mhm. mais dañu gis bi confinement bi tàmbalee ak léegi di mu mel ni kuñ def lavage de cerveau. Mhm. li tubaab tuddee lavage de cerveau mooy soppi nit ki raxasaat ko ba mu set. Mhm. ma gis ne man Sidi mi ma xamoon y'a deux ans et demi ci ginnaaw ak Sidi mi may gis ci six mois yu mujj yi. dafa mel ni yàlla ak yaan yi ma gis ne Sidi dafa màgg ci sur tous les plans. màgg na ci xel màgg na ci xalaat màgg na ci jëmm màgg ci taxawaay mais màgg ci ay xeetu wayin. ndax gis naa ay xeetu yoo xam ne le grand producteur de tous les temps. Mhm. producteur bi man ci réewu Sénégal Matar Diop suba teel. sama mag ju baax ji nga xam ne moo ma defar tey ba may defaree. toog naa biir oto mu tegal ma way woo xam ne bi ñu ma nee yaa ko way dama waar ci yàlla dama yuuxu. ndax gëmoon na yooyu technique ak yooyu harmonie mën nga ko wayee. waaye sama xarit ba sama rakk ja Souleymane Awalaay moom it bay ci waaram def ci liggéey bu am solo. ma gis ni ñu la sotee ak ni ñu la daree changement bi am ci sa ak ci sa jëmm lavage de cerveau boobu Sidi confinement moo am nga toog defal ko sa bopp voilà say mbokk ak say xarit ak say am di jàmm ñoo ko def ci yow wala da nga ci loxo yu yees yoo ne ñu raxas la c'est quoi le problème. waaw euh, loolu dinaa ci sawar a tontu Omar euh, damay faral di dégg olof Njaay naan xar day weesu mbote bu bëggee doon kuy. dëgg euh, démb ay gone lañu woon. Mhm. ba tey ay gone lañ waaye nag bëgg nañ nekk mag. ëllëg ci mhm. métier bi ñuy def. Mhm. pour génération bu bees bi nga xam ne ñoo nekk suñu ginnaaw bu ñu ñëwee xool ñu commencé di roy ci ñun parce que ñun dañoo ñëw am ñu ñu fi fekk di roy ci ñoom. te bu ñu demee tey ba au niveau de la banlieue ku tëb Sidi Diop ngay roy ku jóg Sidi Diop nga bëgg damay toog sama kër nit ñëw ne dara dama damaa bëgg a mel ni yow te defaguma dara. Mm-hmm. loolu rek après day tax nga dugg sa néeg defaraat nag sa toogaay. xam ne nag ñi ngi lay xool. Mm-hmm. defaraat sa waxin xam ne boo waxee suma suma producteur mi ngi may seetaan sànq dañoo añ ba ci yàgg mu yëkkati mu jël téléphone am ne ma balaa ma ko fàtte am na benn xale bu dëkk Wakaam chaque jour bu xëyee bu dekkoon ne lenn nga ko mën a wax mu toog rek la ma ne ko lan la. baabakar la tudd maa ngi koy nuyuwaale xam naa seen waa ka ñu ngi may seetaan ñu ne ma boo ko waxee Sidi Ella mi ngi ñëw day toog réglé sangu toog di ma xaar. xam nga loolu ça fait plaisir ci xale boo xam ne trois quatre ans cinq am. kon ma xam ne sëgam ñooñu ñu ngi may xool waxuma la ak mag ñi. Hmm. moo tax ma defaraat toogaay bi euh, defaraat waxin bi defaraat lépp malgré sax mënul ñaaw. Hmm. jël nag suma suma suma jëmm ji dink ko ay ay kilifa. ku ci mel ni yow dama ci commencé ci yow. Mhm. damaa ñëw ba ci yow xam ni carrière bi fu mu toll mënoo ci ñàkk. Mhm. sama papa dénk ma la nga bay ci waar bu rafet. Mhm. di gërëm aussi suma manager Géeki Mbisaan Faye orchestre 5 étoiles ñuy bay ci man waar woo xam ni te ànd ak man xamul tax mu neex benn côté. man dëgëruma bopp mm-hmm. te damaa bëgg ku may wax defal dëgg man pour man li nekk ci sama bopp baaxut li nekk ci bopp jaam ñi moo baax parce que boo defee ni euh, sa xel ka ni man li may def moo baax rek tem nga juum mm-hmm. moo tax ma jël sama jëmm ji nag dénk ko ay nit ku ci mel ni Matta Diop suba teel mm-hmm. te it ànd bi rëccuuma ci dara dëgg la ku ne xam na ni ci confinement la ñu nekk mais jàmbatuma dara dëgg la barke Serigne Saliou lu ma soxla mu jox ma fu mu dem yóbbu ma yenn saa daf may woo séq ak man yoo xam ne bëggul sax yow nga xam ko. dëgg la Souleymane suma frère aussi suñu PDG. Mhm. nga xam ne moom la ma Matar jël di teg ko ci kanam. ñu nangul ko ko nag mu ci bay waar bu rafet lekkatul mhm. naanatul nelawatul nelaw yu doy dama koy sax yërëm. Mhm. chaque jour mi ngi ci lu ñu neex. muy man muy bas Thioung muy Ibro Naajo chaque jour su lay mi ngi ci lu ñu neex pour lu avancer loolu label bi man nag su ma ñëwee ñu def ma njiit ne ma yow yaa jiitu yaa nekk ci kanam li ma war mooy defar sama toogaay wax waxinu kilifa dox doxinu kilifa woy woyinu kilifa mm-hmm. ngir ñu nekk ci sama ginnaaw mën a roy loolu ci man looloo tax sii di changé tëju dénk sama bopp ñoom Matar te mi ngi ciy bay waar woo xam ne yow déglu nga benn la la tegal des na yeneen quatre morceaux yoo xam ne Sénégal ku ko ci déglu bu ñu la ne di moo woy lii da naan déedéet kon cinq morceaux la. allahu akbar man xaw ma lu tax ma tànn bu la yeneen quatre xam naa dalaa mosal xam ma. bànn la benn benn la ma ci ñamal benn la <laughs> léegi am na leneen loo yëgul.